location nekk lu soxal askanu Sénégal ba tax na ñi daal di doxantu fii ci Parcelles Assainies seet ci bile góor nekk courtier di dox ci wàllum location moom bile góor mi ngi ñëwaat bu baax te xamle décision yi nga xamante ni gouvernement bi jëloon na ko ak fan la mujj toll. Ah, waaw loolu lay li ma ci mën a wax xaw naa bari ndax mën na maa posé wu ci ñaar yëpp. ndax yàlla dogal na xëy na am naa ñu may luye am na ñu luye ci man kon mën na ma posé wu ci ñaari côté yëpp ñaari côté yi nag mooy premièrement bi moom yërmande daa war a lalu ba pare yërmande moom dafa baax ndax fi mu nekk nii jamono ji nu nekk borom kër yi dañoo war a am yërmande ci locataires yi ndax man mii dama luye ay nit waaye def naa ci yërmande kon nag man li ma jëkk posé wu borom kër yi nañu ab def yërmande nañu def yërmande te yàlla tax waaye application bi moom doxaluñ ci dara la ñu waxoon la gouvernement waxoon ak li am bokkul dara dara wàññeeku ci ndax ñetti weer yi ñuy laaj ba tey ñu ngi koy laaj euh, wàññi bi itam ba tey ñi ko appliqué ñu néew la bu doon 100 pour cent matul 50 matut 50 50 maanaam ñi ko appliqué bariwul te itam vraiment loo xamante ni la appliqué dimbali dafa baax. bile soxna nekk locataire mi ngi ñaawlu bu baax a baax. ak coono yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkoontere saa su nekk. gisaguñ si benn jéego boobu ba léegi location ni dafa gën a yokk sax suñ ci benn jéego moom wax dëgg yàlla ñuy yor borom kër yi parce que weer ak morom moom dafa jege te borom kër yi boo waxee ñu ne ñoom seen kër lii nañ ko ba pare duñ ko wàññi daal te ñoom tabax nañ seen kër ñoo ko xam luñ koy luyee duñ ko wàññi kon loolu moom kenn mënu ci dara xam nga waaw ah, loolu la rek. moom locataire moom bu laxasee ba looyee moom mooy loolu xam nga ne lu si këram daal. waaw parce que am na ñoo xam ne bu ñu la looyee moom am fu nekk lañ lay yemale daal am na fu ñu lay yemale dañ lay contrôler ñu bari dañ lay contrôler sama kër nii sama kër naa waaye yow ma xam ne yaa looyee yaay xam nga ne boo bu la amoon lu la gënal doo nekk looyee si ñoom wala comme que yaay xool daal li la kii nga def ko rek loolu bi. ah déedéet dëgg yàlla moom fu ma nekk moom sama mère boo benn problème moom dëgg yàlla bu ma ko fayee moom amu problème moom mère bi moom bu baax la dëgg yàlla contrôler wu kenn nag. comprendre na moom. bile courtier mi ngi dikkaat bu baax a baax di xamle yokkute bu amee du si borom kër yi waaye dund bi mooy li ko sooxe. waaye nag itam na xool nag itam moom itam mi wàññi li mu wàññi lu mu doon ndax it mën na su doo yokk fer yokk ciment yokk peinture yokk lépp wàññi location. suuf si itam terrain bi da cee posé wu ndax fii bu njëkk boo amee 10 millions sax amab terrain waaye fi ne boo yoroon 40 millions pour nga am terrain problème la. loolu lépp la cee posé wu am njàngat mu bëree bëri bëri lu mu bat a seet la côté bu ne nag ci côté bu ne waaw loolu daal xam naa ko ci waaw loolu moom am na ndax location daal la norme dañu loolu la wax ne euh, euh, plus tard la 5 waaw léegi nag gars yi def nañu ko ba le 10 ndax li tax ñu def ko ba le 10 mooy yërmande ji ndax itam jamono ji neexut te weer ak morom ma daa jegeñe moo tax borom kër yi di waslaa ak ñoom ba euh, plus tard le 10 boo gisee nag yoon moom saa yoo ci tënkoo dana métti ci yow. ndax fi mu nekk nii man mën na maa muñ waaye bu yoon doxee suñu diggante waratumaa mën a muñ ndax yoon dafa wax ne au plus tard la 5 te am na borom kër yi ñuy fay la 5 la mën ñi mën a fay location la 5 bariwul kon nag loi moom saa yoo ko toppee ba mu métti dana la xañ sa liberté loolu moom am na ndax fi mu toll nii man mën na maa dëkk ak yow dimbali la yërëm la ndax jamono neexul ak xat-xati jamono nga bàyyi ba la cinq fayu ma mais soo nee bu la waa ñëwee tënk ma ne ma yow di nga wàññi sa kër force waaye nag au plus tard la cinq ngay defal borom kër borom kër ci borom location bi ma def ko au plus tard moom dina miti ci moom moo mais ñëw topp luwaa dina métti ci moom moo tax ñun suñu diggante ak locataires yi il faut yërmande mooy dox suñu diggante mais du état mënu ko ndax mënu ko appliquer mënu koo teg ci yoon dëgg-dëgg ni mu ko bëggee mënewu ko waaw ndax li mu laaj moo bari ndax dafa laaj xaalis te terrain bi da war a jël ay nit ñu topp suivre action bi te ñu ko mën a suivre bariwul léegi suivre ñu ko bañ dem dañ ko def ba par daal te suivre ko topp ñu ko te topp biit la ca war alal ju alal ju bëree bëri la looloo waral mënuñu koo topp loolu loolu itam ba tey lu wér la lu dëgg la ndax am na ñoo xam ne nii dañuy defar bu nawet jubalee mais am na ñoo xam ne bu nawet jubalee duñ defar dañuy wax client bi xoolal boo mënee dëkk dëkkal boo mënul dë nga bàyyi loolu moom d'accorduma ci borom kër di ko wax client ku ne war naa xam sa dëkkuwaay na nga war a dundee ci dëkkuwaay nawet dafa métti te daqari kon ku ne war naa xam na nga dëkkee li gën a wér mooy euh, nawet bi bu ñëwee borom kër bu ne da ngaa war a lu nga defal sa kër sa locataire bi na am jàmm naan naan defal naa sama kër ba dama daan am problème muy boucher locataire yi di am problème amuñu ko ren loolu moom am na waaye nag it waroo wàcc client bi rek ne lu la neex defal boo boo boo bëggee dëkkal boo bëggul bàyyi loolu teguñu ko fenn. location nekk lu soxal askanu Sénégal. ba tax na saa su nekk ñu ci nammeeku ay jafe-jafe muy bàyyeekoo ci borom kër yi ak ñu luyee nekk loo xamante ni saa su nekk état bi mu ngi ciy def effort waaye du mujj fenn.